xam waaw xam nga gars yi léegi euh, comme toujours rek li ñuy def ci waxtaan tey déjà damay commencé ndax xamuñu doomu Adama du mat donc jaar nañu Columbus Ohio remercier fa suñu xarit euh, suñu mbokk yiñ fa dajal yëpp euh, ndeysaan maire Dial yéen ñëpp daal ñu ngi leen di remercier ku lim juum si rajo ba ku daal juum wuñu kenn légui def nañu même chose jaar Cincinnati Ohio ñu vraiment remercier len yeen ñep dal wax deug yalla xam nga doomu euh, jot amul ci campagne bi ñep bay sen liggéey De ñu ben dem aussi di euh, Kentucky Louisville wax deug yalla mention spéciale aussi ñu defalu nós ñu am fa ndogu bu am solo vraiment meeting bu mag a mag a mag a mag a mag waa Louisville Kentucky mention spéciale wax dëgg yàlla you know seen coordinatrice sama jabar yi sama frère yi sama mbokk yu baax yi waaw donc vraiment ñu remercier waa Kentucky tamit bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci accueil bu bu chaleureuse bi ñu accueillir ñu fa aussi ñëw Memphis Tennessee jaar Nashville à euh, Memphis aussi vraiment nous le vraiment nous remercier bu bah bah Mississippi Alabama voilà nous Atlanta ñu Atlanta vraiment Memphis tamit mention spéciale donc pour que... pourquoi vraiment déggoo woon wala gisoo woon sa remerciement rek xamal na lii yow yaa ko moom. gars yi ñu ngi ci campagne mais aussi dañuy def ay taxaw seetlu yu ndaw gis nañu press est-ce que mën naa leen tuddee presse du ma leen tuddee les corrompus wala ma ne presse rek ndax ñëpp wax dëgg yàlla dënguñu am nañu baax waaw mais gis nañu presse sénégalaise. une certaine presse sénégalaise bu dem présidence de la république mu ne amnistie ne leen quarante milliards de francs CFA kenn mësu koo dégg fenn ci àddina déglu leen ma de amul fenn fenn fenn ci àddina réew yi nga xam ne ay réew multimilliardaire lañu te ñu nekk fa ñu ngi nii ñu ngi nii dañuy subventionné presse dañuy am ay subvention presse bi day am publicité jóge fépp ci aduna bi mais presse bama ma juddoo ak léegi bu dul Sénégal masuma gis Masuma gis ay patron de presse yu dajaloo à la veille des élections dem ci kanamu président de la république mu ne jéggal na leen ci lu tolloo 40 milliards kenn musuko koo c'est inédit benen patron de presse bi gëna corrompu ci Sénégal koku mom néna na dem na and ak sat bi ki mu xamné mom ci bopam xam na c'est un voleur mentionné spécial ndax Amadou Ba sénégalais encore une fois bo leen démé ci page aduna bi yépp gis ngeen dañ leen di dugalal ay ndiaxumam Amadou Ba mo gëna mëna def ndiaxum ci Sénégal xaw ma ban sénégalais moo perte xelam wala dof waaye ku képp ku dem nga woteel Amadou Ba xam nga mënu ma wax loolu ci ñëpp ndax y a d'autres ñun suñu candidat bu baax bi Bassirou Diomaye Faye la mais sénégalais bu juum sénégalais bu juum wàññi ko voilà sénégalais bu juum nag ba nga dem ànd ak Amadou Ba tu as fait une erreur catastrophique erreur catastrophique manam magnitude erreur bi yow ci sabab xamulo nu mu toll voilà Amadou Ba nit la ko xamne ne na rew senegal plus de 40 ans na genn mu wax ñu patrimoine am manam kep ku ñu wara a jox ab rew ci rew mu da nga wara ñew nga déclarer sa am-am balaa ñu lay jox réew mi nga ne lii laa amoon lii laa am tey balaa ñu lay jox réew mi ëllëg ak si biir suñ la manee càmbar suñ la bëggee càmbar ñu xam nuñ lay càmbare waaye boo ñëwee ci réew wane woo loo am yow bu la neexee ëllëg ak si biir luñ la wax rek nga ne amoon naa ko ba pare donc c'est pas légal du loi du éthique Sénégal dañu ne balaa ñuy fal président dafa war a def déclaration de patrimoine lu tax Amadou Ba bañ ko pourquoi Amadou Ba bañ ne moom déclaration de patrimoine am Amadou Ba nangu koo def mu ne sénégalais yi du leen wax ñaata la am ba ginnaaw boo leen ko falee ba pare daanaka nee na ñëw leen ma jaay leen jaan ci biir pax bu leen def boobu erreur donte juróomi nit ñoo may déglu juróomi nit yooyu xam leen ne du Amadou Ba Amadou Ba n'est pas le candidat beneen affaire bi encore une fois sénégalais yéen a ngi dégg fépp ñu leen di wax ay bureau fictif af ñu leen di wax ay carte d'identité nit ñi jëleegul ak ñu wax leen ay transfert d'électeur ak loolu yëpp yéen a ngi koy dégg waaye loolu am na lu ko mën a contrer mooy vote massif ñun am nañu doole boo xam ne tey bu ñu génnee bu ñu wotee massivement sécuriser suñu ay vote balaa mbii di yuuxu jib fuñ ko foogeewul donc bu leen xeeb seen bopp bu leen saggane seeni ay vote nañu jóg ñun ñëpp ñu préparer ku jëliwul jëlil ku jëli woon ba pare yóbbanteel nit dimbali ko mu jëli bosam ku amul paas xoolal ci patriotes yi ils sont tout gentils nga wut paas nga dem jëli sa carte nga daas nga fanaanal voilà damane patron de presse gaay Johanna jox nañ leen daanaka limu def ak jël 40 milliards jox leen ko yëpp benn ndax li ngeen amé ci bor ëpp na ñeen fukki milliards ci réew mo xamné amul hôpital bu niveau 2 amul nga né yow ya yo da nga bal patron de presse 40 milliards parce que vous étiez corrompu ñu bari ci yeen ay sàcc ngeen won ak ay fenkat ak ay manipulateur da ngeen confirmer li ñu waxone vous étiez des mercenaires léegi kon defal ngeen Macky Sall yu mercenaire am ba mu mat mu daanu muy waja dem mu ne leen léegi ñëw leen ma bal len wa wa yenen parti politique sax bëgguma tuddu ay tour bëggon nañu mu passal len ñomit loi d'amnesty euh, amin loi de retraite assemblée nationale pour lan nee nañu pour ñu paasal leen retraite parce que xam nañ ne ils sont morts politiquement xam nañ ne kenn dootu leen fal du ci députation du ci mairie kenn dootu leen fal xam nañ ko xam nañu loolu ñoom ñoom xam nañ ko dama ne sénégalais yi lay waxal sénégalais yi am fulla am fayda am jom xam leen ne élection yi benn élection la ci histoire senegal élection yi amul benen élection buy melni dans l'avenir du Sénégal donc na sénégalais yépp jóg car sen tànku tubéy baare yoon bi à ces délinquants c'est suñu responsabilité la C'est dans nos responsabilités suñu ay waréf la dama ne Macky a tout fait Macky def na lepp lu man suñu mënoon arrêté du bàyyi gars yi génn ci kaso bi Ngagne Demba Touré tamit génn na sànq macha allah dem na joindre coalition bi Ngagne génn na dem na joindre coalition bi donc ñun fi mu toll nii Sénégal ñun ñoo fii dogal lenn rek la ñu yaakaar ñoom te ba léegi ñu ngi ci yaakaar yaakaar ne xaru la nag xaru la mais man duma leen wax dara man da bëgg ñu jéem comme ça ñu mën a jël seeni bakkan dama bëgg ñu jëm ko motax duma leen affaire rek mo comme ils sont dos au mur nee nañu par force mo leen dese Nous lolu bu leen faté ne Ousmane Sonko na Macky Sall en 2019. élection présidentielle mom Sénégal donc rassurez-vous que le lu ñu def ñu ngi di sur la route. lépp lu ñu def ñu ngi leen di xaar lépp lu ñu def ñu ngi leen di xaar sur la route lépp lu ñu mën a def nag ñu ngi leen di xaar. oncle Mab am na loo ci bëgg a yokk wala. non wax dëgg yàlla comme li nga wax ñëpp jóg fexe nu ñu dem jëli seen carte d'identité yi waaw daas fanaanal waajal te xam na luy jot jot na waaw xëdd dem vote ji ndogu si bi loolu rek ci am donc ñëpp waajal xam ne jot daal amatul fi mu toll nii waaw asalaamaaleykum. waaw cinq pliés laa leen di jox. vote voter faire voter sécuriser le vote xëdd voter ndogu jubilé jeex na. kon boobu yéen a ko déggal yéen ko déggal seen bopp voilà kooku mooy sëñ Malick. je pense que nous, ñun nous de nañ ko de voter. ndogu jubilé jubilé. voter faire voter. sécuriser le vote. voilà de voter ndogu jubilé jeex de de voter. ndogu jubilé ndogu jubilé. nous lu ñu man sama xarit yu baax yi nañ ko def lu ñu war nañ ko def Lepp lu suñu nañ ko def parce que responsabilité bi. is in our hands magi ngi sant di gërëm ñep di jox wa Atlanta rendez-vous ñu fay yexi ñu ngi romb ni Birmingham Alabama Birmingham sama mbokk Alabama yi ñu ngi leen di romb ni ñu ngi romb Birmingham Alabama voilà Birmingham ngeen gis nonu ñu romb sign bi we almost in Birmingham yow tegal ñu musique rek ma gungé len touti ñu romb vilu Alabama wala comme ça ngeen gisaale ko bari ngeen fi ay militant nak Alabama bari nañ fi ay militant ndax ya astu ya ya astu fi la dekk ya astu so nga ya astu madame Balla mom mi ngi dëkk Tuscaloosa ñi ngi ni Montgomery Alabama léegi bo xolé fi Atlanta Georgia ñun côté bi lañ jëm Atlanta Georgia waaw ah, Alabama Birmingham Alabama Birmingham Alabama waaw ah, fii Birmingham Alabama voilà gars yi moom bi yoon promettre nañ leen di ngeen di ngeen am visite bu baax ci Amérique état yi ñu dugg yëpp di ngeen ko am incha allah donc ñu ngi nii di romb Birmingham Alabama pour dem Atlanta Georgia on est à 155 miles d'Atlanta, Georgia soit voilà soit deux heures de temps de conduire 200, manam, 200 300 km 300 kilomètres le manam. Ah, ay 300 euh, Atlanta tali regarde regarde, regarde, maanaam dëkk yu sori sori la du ay New York déedéet xoola xoola dëkk yi niñ ko liggéey ñii dañu liggéey Jomaay nee na lii la leen bëgg a defal Sénégal lii mooy programme Jomaay defar ab xool leen lii Alabama la nekk Sweet Home Alabama Ala Alabama ngi way université Alabama bi ngeen di dégg fi la nek University of Alabama Kolen rew mi Alabama ah Kolen leen dañu liggéey seen dëkk bi ñii duñu ay fokat Kolen fi moy Birmingham Alabama rencontre Atlanta Georgia dinaa la ko dugalal dinaa ko poster léegi je vais poster l'adresse de rencontre voilà Alabama oui Birmingham Alabama eh eh am na ku nekk ci live bi yow eh, eh, kii ma yow eh sama xaalis gis naa la fii ci live yaa ngi nii waaw sama xaalis <laughs> <laughs> mi ngi fii ci bi mi nii di commentaire xam nga sa bopp fayal sama xaalis wala ma siiwal la fay ma xaalis amel nga ma cent cinquante dollars fay ma wala ma siiwal la gis naa la ci yaa ngi nii ma lay gis ngay commentaire maa ngi lay gis fay ma sama xaalis léegi bu rëy bu dund bu du dem léegi commentaire way a, a rola pequenina dela. et c'est de bonnes questions ay question yu baax la voilà ay question yu baax parce que li tax ma ne ay questions yu baax la euh, xam naa ne ñu bari ci ñun on est inquiet et notre frère Pape Alé Niang moom mi ngi fatt pax yooyu il faut ngeen comprendre ne Pape Alé li muy def mooy mi ngi fatt paxu tappalekat yi mais dama leen di laaj yéen ñëpp sénégalais yëpp laay laaj nag et c'est une question de respect moom laa leen di laaj dégg nga ngeen baal ma ak ci sénégalais yi laay waxal di nga bàyyi benn kër mu am ñaar fukki xale yu góor déglu leen na ñaar fukki xale yu góor benn nit jóge ci mbedd mi disons benn nit bu yàllax yàllaxe comme Amadou Ba rek ñëw mbéj sa yaay mbéj sa papa génn kër gi ne bonne soirée loolu xam nga mënta nekk donc Amadou Ba ak ndeyam ak baayam ak waa këram yëpp nu ñuy sàcce ay élection Sénégal te nit ñi ay doomu yoon te ñuy ay ponkali jëm am fulla am fayda di toog di ko xaar pour mu dëkk biir Sénégal gënuñoo dëkk biir Sénégal am Amadou Ba Guinéen la ñun ñuy ay sénégalais mu sàcc ay élection ñu toog sàcc nuñ ko daan def Sénégal bu nit sàccee ñu ko daan def déedéet dañ koy duma ba mu faatu donc loolu mooy am jouru élection yii Amadou Ba gënuñoo bëgg Sénégal Amadou Ba ëpp ñu fit Amadou Ba ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda ëpp ñu jom président Ousmane Sonko joxe na ndigal voté leen et sécuriser seen vote newuñu ñu tooñ kenn ñun ñu tooñ mais ku yaakaar ne da ngay ñëw senegal bëgg a jël ñun suñu ay élection ne yow da koy clip commande sa ndey juddoogul sa baay juddoogul dañ koy ne Amadou tegal tegal lañ koy wax dañuy wañaar loxoom voilà donc bàyyi leen loolu xel. gars yi tegal. Amadou tegal fii ñoom fii duñ ko bay dara. gars yi maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ñu ngi demaat continuer suñu trajet incha allahu rabbi bu ñu yeggee rek léegi Atlanta dinaa dugal adresse su Atlanta bi déjà point de rencontre bi Atlanta parce que dañuy def caravane ci biir dëkk bi après ñu def rencontre ci ngoon incha allah dinaa dugal adresse bi képp ku nekk Atlanta jooja te ngay waa Pastef te ngay parti bu baax bi te ngay te nga bëgg jomaay te jomaay di si Sonko ah Tunkara di jomaay Tunkara di Sonko nga daal di ñëw waaw. kan mooy jomaay yow day day dafa naan. man maay jomaay yow non non da nga doon jàng benn leçon démb est-ce que moo ko waxal ma ko. jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay. ah jomaay mooy Sonko. ah Sonko mooy jomaay. jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay moo ko la. jeex na tàkk. donc Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye jeex na donc gars yi on se donne rendez-vous incha allahu rabbi incha allah ba ci kanam maa ngi gi sama nag Kayis Kayis no def voilà donc euh, gars yi ci kanam tuuti rek incha allah on se redonne rendez-vous non non non bàyyil waa jooju petit petit bii sama mbote la bàyyi leen bii sama mbote la. bii sama mbote la nañ ko bàyyi mu débattre ak mbote yi mbote mënta débattre ak doomu aadama bàyyi leen waa jooju muy katara yoo ko kenn waxul ci moom donc il va falloir mu wax ci dara pour ngeen wax ci moom bu leen wax ci moom de du ma tudd turam bu kenn tudd turam jàppale leen ñu rek ku war a débattre ak mbote kooku mënta débattre ak jomaay bàyyi leen ko mu débattre ak mbote yi gars yi ñu ngi leen di sant bu baax waa salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu